دهر نياتي ويلي وغيبتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جليدي بوكي طالبي mboolem waa daari Hizbut Tarqiyyah biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant fii ci daara yi Hizbut Tarqiyyah ci teewaayu jëwriñu daara ji sëriñ Youssouf jóob jublu gi nag mooy ziyaara boo xam ne daara Hizbut Tarqiyyah fas na ko yéene amal ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggu tabaski wi ñu nekk dëppook samedi 25 juin 2022 ci Touba ci kër Serigne tuwaay gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji kon dinañ ko jox moom Serigne Youssou Diop mu indi kàddu yu woote jëm ci mboolem membre yi ak mboole bokki taalibe bi yëpp bu ñu noppee Serigne Ahmadou Sidi sàmb ci comité d'organisation bi dina indi ni nga xam ne ni la ñu bëggee ñu dikkee ni ci waajtaay wi Serigne Abdou Salaam Dieng itam ci comité scientifique dina indi ay fàttali yu jëm ci ziar bii ñuy def ni mu doonee ndonoy lislaam ak fi nga xam ni fala war a nekk ci taxawaayam Serigne Modou Thiam dina soññee ci turu mboolem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci isbu tarix ci biir réew mi ak ci bitim réew ku ci ne taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy séntu ci yow ci bis bu màgg bii Serigne Makhtar Thiam dina indi ay soññe yu jëm ci mbooleem ñi nga xam ne itam ñooy membre yi ci teewaay bi niñ ko sàkkoo mu du Joxaane ci turu kuréelu Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne am nañu taxawaay bu ràññeeku bu ñuy séntu ci ñoom ci bis bi mu wax ci seen kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe rawatina waa daara Hizbut Tarqiyyah biir réew mi ak bitim réew ci turu direction générale bu Hizbut Tarqiyyah ñu ngi am mbégte kon yëgal leen ne am nañu tawféex Cheikh Mamadou Mountakha jàppalaat ñu bisub siyaar kon bisub siyaar bi ren euh, le vingt cinq juin deux mille vingt deux bisub gaaw lay doon dëppoo itam ba tey ci diggu tabaski bi ñaar fukki fan ak juróom ci kër Seexul Xaddim gi nekk ci Touba jàkkaarloog jumaa ji muy ak cant gu rëy ci bis boo xam ne dina mën dinañu mën a jàkkaarloo waat ak sunu sang bu tedd boobu di Cheikh mun taxaa ngir seereel ko sunu cant ndax lott nañ ci waaye dañ ciy def sunu lépp ñaan sunu borom gàttandunu ak dimbaleenu luy tax mu ñu mën cee am ngërëmal yàlla sunu borom euh, di nag yëgal mboolem njabootug Sëñ Tuubaa gépp te bu ñu tàmbalee ci Cheikh Mamadou Bachir ni nga xamne ne yor kaddu sëriñ bi kenn baña dess des ci njabotu sëñ touba gi ndax ñoy suñu sank di len ko yëgal ndax at mu jot dañ ko daan and ak ñun ngir xamne ne tarxiya Tarqiyyah kenn moomu ko alali sëñ touba la euh, di ko yëgal itam cheikh yi digënte Mbàkke ak musobe ak suñu bokki bay Faal yi yi nga xamne ne at mu jot ñokoy and ak ñom lolu kon euh, buñ ci joggé itam di xamal ñepp ne bokk yi am di jàmm yi dëkkandoo yi kenn desul ndax Hizbut Tarqiyyah alali Serigne Touba la joo xamante ne ni ko Cheikh Mamadou Bassir di waxee ne soldaar yoon wi la ko sëñ Mountakha de kon soldaar moom armée ñëpp ko bokk kon euh, ziar bi ñu ñëpp ko bokk euh, sëñ Atou sunu jëwriñ ju tedd ji ñu ngi ñaan sunu borom di yokk ci moom yërmande di wàccee ci kawam ndimbal di wàcc ci kawam ngërëm saa su ne ak njëggal euh, moom itam noonu la ko daan waxee di wax ne isbu tarxiya du isbu tarxiya bu waa isbu waaye isbu tarxiya yoonu murit la ginnaaw loolu nag ñu xam ne ziar bi dafa ñëw ci contexte boo xamante ne daf ci am xaas jagle loolu mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa dajale waat njabootu isbu tarxiya gépp daan naa leen wax ne euh, ziar ki jëkk bindu isbu tarxiya ci 1975 ba ci bisub tey ku fi def ku fi def sax benn fan ci nga bokk waaye tey jii nag dafa am lu lu lu yees ci ci ndimbal loo xam ne ma lu mun taxaa ñëpp bëgg nañ ko waaye moom la ko yàlla jagleel mooy dajale waan njabootu Hizbut yëg yëpp tey jii ñu mën a ñëw doon mel na mbooloo loolu nag euh, nit mën na koo bëgg bi ca jéem waaye yàlla moo koy jagleel ku ko soob dafa mel ni tey jii suñ doon wax raaya bi nga xamante ne moom la sëñ mun taxaa yor ba tax mu mën loolu boo demee ci muqaddimaat di nga ko fa fekk sëñ Tuubaa di wax ne lakkal mojizaatul xurru yaa xayra sayidin alayka salaatullahi yaa jaamiha chamli la ko may mu mën a dajalewaat mbooloo mi aw ay melo la yu ne ci moom laxat kunta sabbaaran shakuuran wa naasixan alayka salaamullahi yaa maahiyal jahli loolu kon dafay loo xam ne ku ku ku jàngat dunduk Seex Mamadu Muntaxa di nga ko fekk di nga fa fekk loolu ci biir mu doon loo xam ne da ko jëf dund ko ba suñu borom may ko ca ay ay ay jagle yoo xamante ne ku ne xemeem na ko ci moom ma bëggoon nag ñu xam ne ziar bi moom lenn rek ko tax a jóg mooy sant ko fedd li suñu laxasaay yeesalaat suñu jaayante ak lépp lu nu am lu dajale ko dem fekk ko jébbal ko suñu àddiya lii nag dafay loo xamante ne dafa am lu mu laaj yitte ju kawe la laaj ndax Euh, lépp lu nit di def ci sëriñ Touba na koy natt ci xool moom Serigne bi aw doxinam ndax digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam junni at yu topp waaye moom fexe na ba jëfam ci toolu lislaam deme na noo xamante ne moom ñu jëkk ñi ak ñu mujj ñi xam nañ ne kenn gañawu ko ci yonent bi sallallahu alayhi kon ñun bu ñuy liggéeyal Serigne Touba te tour deret ñu tase ñu fekk foo xamante ne tour deret dañ ko araamal kenn lañ tuurloowul deret kon suñ jëlee suñu alal di ko jox Serigne bi war nañ koo defee noo xamante ne ñu tuuroon seen deret seen deret buñ ñu gisee nawloo ñu loolu nag dafay loo xamante ne lu mën a ne la ndax sëñ Tuubaa moom euh, diggante ma yonent bi li muy sori sori daf lay wax ne la maaw mi daal di kat di maay suhada mboolem ña xare woon ci lislaam ñoom xam nañ ne xalim ak sëñ Tuubaa ak daay da daa ji nga xam ne moom la doon bindee xam nañ ne daraja jooju moom moom moom ñoo tolloo waaw ci mu ne la كما مدادي به وقلمي جعل مثل أسيوف وأسومي jaasi ak xeex yi doon xeex ànd ak yonent bi moom xalima ak daaj yi sëñ Tuubaa di bindee ñoo tolloo daraja loolu nag ko ku mel noonu da lay wóor ne kon yitte moo ko fa yeggale positif ak ngëm moo ko fa yeggale kon nun bu nu yor melokaani li xew ci jamono muy ñuy wax donful yaqin mooy mel ni koo xam ne da nga naan jamono daa soppiku nga bëgg a doxee ak taalibe goo xamante ne da nga koy soppi mu nduroog jamono ak taalibe nañ ko delloo ca cosaan la lu am joxal sëñ Tuubaa te di ko xeeb wallazina yu'tuuna maa aataw wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raaji'uun kon lii mooy liggéey bi moom la ñuy woo ñëpp ñu xam ne moom lu mun Mountakha mii ñuy fekk ji nañu waxtaan tuuti ci moom ndax da ciy baax xam nu ñu jëriñoo ci moom ndax naalam yu rëy yii mu naal naan la yoo xamante ne baax na ñu xam ne war nañoo dollee góorgóorlu ñun dong yi ndax euh, moom bu yëkkatee dara rek ñun dañ ko war a jëf fi saa si euh, naar yi nag yaatu na waaye bu ma ci tuddee benn rek muy euh, mu jàmmaaw bii nga xamante ne moom mooy université bi di juróom benn fukki bâtiment ak juróom-ñeent waaye tey jii dafay doog a xaaj bâtiment yi ngi ci tàmbali kon bu tolloo ci xaaj moo lay wan liggéey bi des na moom nag dafa bindoo noo xamante ne la sëñ Saliou doon wax naan joxe bi dafa jiitu laaj bi moom jàpp na ne dong dong bi mën a kittale ku ñëwul it moo la war a moo la war a jëfal waaye nun nag nan jaajuwaat waaw nañ jaajuwaat te xam ne tey jii war nañ koo fekk seek noo xamante ne lu nu am def ci ab dongo nag sañ naa jëfandikoo tanaasaul mawtamaa mooy fexe ba roy saxaaba yi ci ñoom dañ doon xëccoo dee ngir yëkkati lislaam ñun turloowuñu deret waaye ñu jël sunu alal di def infaax ngir lu yëkkati lislaam ñun sañ nañoo jël tanazol mawta mawtama def ko suñu yóbbal di séntu nag ci sëriñ bi am ma daw rabbu la naam bi jundi am laa ki nañ leen gàttandoo woon dimbali leen ñun tamit ñuy séntu nu gàttandu nu dimbali nu ban jëf loo xamante ne kenn ku ne ci ñun boo xoolee sa morom di nga xam ne du loo mën la cay tëj nag mooy ma bëgg rek ñu xam ne lu Mamadou Mountakha mi lañ ko war a santee mooy li mu nu dajalewaatee Hizbut Tarqiyyah gii lépp doon benn bopp man de xeeb naa ci sama bopp ndax xam naa ne lu ci sotti ma ci dara ndax li mu laaj mënuma ko waaye nag damaa bëgg nun ñëpp ñu xam ne kenn ki ko jëf muy Seexul Xaddim nañu fàtte suñuy jëmm te gis jëmm moom Sëñ Tuubaa suñ ko defee dinañu ànd ànd bi dana rafet te dinañ am ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah barke Borom Tuubaa kon ñoo ko déggandoo jërëjëf sëñ Youssou yaakaar naa ne woote bi mat la na ci fànn yëpp kon bu dee ci wàllu organisation faaw dañ ko dëppaleek dimension woote bi ñu def ko ci ñaari xaaj bi ci njëkk mooy li nga xamante ni bii mooy ndigal yim jëp yim digle mu jëm ci wàllu wàccaay wi ci barab ba nga xamante ni bii fa la ñuy jaaree ci diggante aménagement yóbbu fa ay bâche yoo xamante ni bii dana sàmmonteeg fa kilifa yi war a nekk ak sëñ bi ak waa ak njabootu boppam gi ak fi invité yi nekk ak fi jëwriñ yi nekk ak fi xale yi nekk ak fi soxna yi nekk defaree ko noo xamante ni bii lu mbooloo ñu bari bari bari bari kenn fu tumuranke ngir bis bi moo ni demee loolu it day dëppoog barab bi ñu taaral ko noo xam ne ci wàllu ki fu ñëw ku ne xam ne bis la boo xamante ne bii ndamal Sëñ Tuubaa rek moo ci mën am ndax posters yi affiche yi bandool yoo xam ne boo ci jàng rek mu fàttaliwaat la li nga xamante ne bii moo indi si kaw suuf muy jaamu yàlla ak liggéey wàllu sonorisation bi it lu mbooloo mi bari bare bari ci li wër jumaa je kër Sëñ Tuubaa gi nañ taxe bu fay mën a nekk li sëñ biy wax ak lañ fiy wax lépp boo amee teewlu dinga nga ko taataan ba dara du ci rëcc écran yi it liñ digle mooy fu nekk fexe ba nga jàkkaarloog sëñ bi te lu tee xat-xat di ci am matuwaay yëpp fas nañ ko yéene jël ngir jëfe ndigal li li ci mooy ku ne xam na ne ziar bi dana am ñoo xamante ni duñ mën a dikk ndax réew réew yi ñuy nekk duñ mën a diw donte dana am ñuy ñëw waaye ñëpp duñ mën a ñëw kon digle ne ñu def direct boo xamante ne bi ci télévision yi ak ay liens yoo xamante ni bi foo mën a nekk ci àdduna di ko mën a suivre en direct te mën a dund li nga xamante ne bi mooy bis boobu nga xamante ne bi bis bu mag la ak nag mooy la mbooloo mi bari bari bari dinañ fexe ba ñu yor ndox mi yor wàllu café yi yor wàllu accueil yi wala wàllu sécurité ak conservatoire ak waa culture ku ci ne di def sa liggéey te doon benn rajo loolu nag pour moo nekk faw dañuy lëkkaloog ñi nga xamante ne bi ñoo fi nekkal nguur gi diggante sous préfet mu jox ndigal ñi nga xamante ne bi naka jekk fu organisation bu mag amee dana jabal waa police yabal waa sappeur yabal waa de d'hygiène waa district sanitaire ak waa croix rouge pour ñëw ànd ak ñun ñu taxawu mbooloo mi ba kenn ku ci ne la la tax a jóg nga am ko delluwaat ci jàmm te dara du fa beneen ndigal li moo ci daara ji nga xamante ne bii fa la mbooloo mi dalee diggante wàccaay gan ñi gàttanu leen taral leen kenn bañ a xiif kenn bañ a mar ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm daal lañ jàpp ne bu ñu ko defee boole koog ñu yor wàllu organisation bi ñu identifier leen ba képp koo xamante ni yoroo base boo xam ne base organisation la nga xam ne da war a ñëw ñu dalal la nga déglu te lu la wax rek nga jëfe ko loolu suñ ko defee bolé suñu xol mu doon ben lu barab bi barab bi xat xat xat xat suñu bolé xol yi rek yaakaar naa ne barab bi dana yaatu ba kenn ku ne fo tok di nga mëna tewlu sëriñ bi lo rek am solo tewlu ko ak gis gi jërë ngeen jëf a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiyai wal mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon mbokki julli mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ñëw tuuti rek ci li nga xam ne moo ñu fi dajale mu yitte joo xam ne ju am fu mu tegu la ci lislaam ndax ku xool mbindum Cheikhul Khadim te buñ ko waxee yóbbaale na ñun ci ñun mboolem dégg yi nga xam ne yëpp dañ koy baluloo ci alquran ak ay hadis dafa ñoo digal ne nañuy zaare ji ndax mo ne zur man tahib demel ziare ka nga bëgg mu wax ne itam ne inna alladina ila sarsara qad qasadu ziarati faraqu darina aw zara ñi jóg dem fekk ko fofa wax na tuyaba yéen say amee te loolu mooy tàggoog bàkkaar ziar nak di lu bari ay njëriñ mo taxoon sëñ bi di ñu wax ne wala tazal ilayhi za ihdai lahu bima stata'ta min ata'i mu ne bul deñ di addi sab señ ci kem sa kàttanam toll kon looloo tax ba bu direction générale jógaatee soññaat nit ñi ngir ñu war a jóg delluwaat sëriñ bi loolu kon dafa dëggal rek ndigalal sëñ Tuubaa lu mu digal kon faw ñu xam ne ñoo jaayanteeg sëñ Tuubaa ci di ko jox suñu alal ñoo jaayanteeg moom ci jox ko suñu bakkan loolu tax waxtu nekk ñu war di delluwaat di yeesal loolu euh, dem gi itam mu am ay njëriñ yeneen ndax dem sab sëriñ mu xool la loola day am lu muy def ci taalibe موته من نصره الحب من الشيخ إلى مريده هي المزايا والعلا بتي توفيل يلسب سرين جاك خولا نينا مولاي ماي أكاوي مولاي ماي إنجنيل بنصره يخنيك مولاك بها عن كثرة الكد فكن منتبها نينا يولا يلسب سرين خول دانا لفقال تونا يوورو نصرن لو باري باري غير اغ فن ولا غير ام دراس صبروم te itam neena dana dana la lo lo dan la may kom aduna ak mom alakhirah kon ziar bi dal foko uh, tak rek ci pass pass war ko koo ngir ni ko sëriñ waxe feddali ak sun suñ ak serigne bi waaye ak jayante sun suñ ak mom, waye nak ñu xamne itam addee lu munta ñak la te waxtu wu ñu wara dem diko yassalat kon li dal moy kaddu yi nga xam ne moom lañ ciy indi alaykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani barke borom ñi ngi ziar mbokk taalibe yëpp dellusiwaat nag ci li nga xamante ne bii woote nañ ko te jëwriñ daal ji leeral ko léegi muy ziar bii ñuy dëgmal tam nañ suñ kanam ñu ciy sant nag Seexul Xadim Mbàkke di ci sant Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke mi ñu bokk yaakaar ñun ñëpp te tawféex ji nga xamante ne bii moom la ñu defal ñu war koo sant ndax bi ñu ànd ak moom weeru koor gi ba mu jeex lam ñu defal ca kore ga ca guddii bañ jàngee xasida yi ba noppi mu ñëwaat ci suñ biir soññat ñu nañu saaba yi comme li nga xam ne jëwriñ daara ji doon na ko wax léegi wax ne tanazaw mootuma maanaam saaba yi dañ doon xëccoo dee ngir yëkkati baatub yàlla suñ borom lislaam Cheikh Mamadou Mountakha nañu saaba yi mu àndoon ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañ amoon tawféex la ne tawféex jooju yéen suñ borom da leen ko defal yéen dañ waa Hizbut Tarqiyyah dangeen ko am loolu nag war ñu juralaat kenn ku ne ci ñun nga war a delloo sëñ bi teraanga jooju nga xam ne defal nañu ko muy sant ko sant gi nag dañuy xam ne ñun fii kaw suuf dara indiwuñu fi lu weesu ngërëmal sëñ Tuubaa sàkku ngërëmal sëñ Tuubaa muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon loolu rek moo tax ñu nekk ci kaw suuf guddi ak bëccëg nag loolu moom jaayante la ndax liggéey yi nga xamee dañ ko seq yëpp leneen lu ci ne lu jeex ñu teg ci leneen lii dañ daan dégg sëñ Abdoulaye Mbacke di wax ne liggéey bu jeex nañ ci sof leneen fii ak ñuy dem kon lii moom moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi kon ziar bii diggante bii li muy xat xat xat wóor na Cheikhul Khadim Mbacke jëruñ daara ji li nga ko waxee jekk nañ sant rek lañuy def te xëccoo gi nga xamante ne bii fa lañ toll li nga wax day dégg diggaat na dikkaat na mooy tur deret moom faat na ndax waxu soxlaatuñ ko ci lislaam waaye pas-pas joxe sa alal ci yoonu Yàlla muy lu wér loolu moom fii lañ ko fekk te sëñ Tuubaa yàgg yoonam wii loolu la laaj kon ñu ngi jugaat di jaaju di woo mbooleem daara biir réew mi ñu xam ne njëkk nañoo def rassemblement Touba ngir ngir lancé ko bañ ko lancé sax ñu bëri jàppoon nañ ne bis booba ca lañ ca lañuy pare ziar bi ñu defaat beneen deuxième rassemblement Dakar loolu bañ ca ñëwee taw feex lañ ci sëñ defal ba fi mu toll nii daara ju ci ne yaa ngi wane ne man damay sant sëñ Tuubaa ci nit ñu dikke waaye nag ñetteelu rassemblement bi nag Touba la ñuy war a ñëwaat rassemblement boobu nag rassemblement sant lay doon fi mu toll nii am na fu ñu toll waaye nag dafa laajaat kenn ku ne xam ne lañ ca doon def lépp nañ ko fatte te xam ne dañoo dëgmal koo xamante ne bii mooy suñu sëriñ mooy mooy suñu sëñ bi bisu penc sëñ Blaat Mbàkke wax nañu ne murit bu ñu teg ci jàkk bu ñu wax waxoon ne mën nga am beneen sëriñ bu du sëñ Tuubaa boo mën a jug boo jugee doo jël yet waaye jaay si ngay jël sa biiru bàmmeel lay sa yitte sëñ Saliou Mbacke wax nañu ko mais loo fa defut doo ko fekk kon kaw suuf li ñuy liggéey lépp jaayante ko Cheikhul Khadim mooy suñ dund gépp waxtu wu ne ñuy jaayante Cheikhul Khadim lu ñu am sëñ Bamba ko moom. kon loolu ci la ñuy waat mboolem membre yi biir réew mi ak bitim réew bitim réew nag ba Elimane Sarr ñëw fi tey jii ñoo koy waxal gis nañ fi liggéey bi toll gis nañ biir réew mi fi ñu fi toll xaw nañ leen a jekku waaye nag ñu ngi waajaat waaye li ñuy wax bitim réew nee nañ. nda si rassemblement bi ñu defee Touba ñooy man cellule nationale yi loolu nag yóbbante la waaye fi ñu toll nii ñun ñoo leen jekku cellule nationale yi ñu jekku waaye ñi ngi ñaan Sëñ Touba dafa ñu taw feex mboolem daaru yëpp kenn ku ci nekk suñ euh, accès ci jotaay ba ñëpp am ndam kon daal lii laa ci bëggoon a dolli tey wax ne woo nañ ci murit yëpp nag ñu ànd liggéeyal Sëñ Touba ci ni nga xam ne noonu la ko jëlee daara ji woori bàkk borom Touba bismillahi rahmaani barke sëñ Touba Xaadim Rasool suñu yaakaar ñu ngi siyaare bu baax a baax tey sant ndaje mii ñu fi woote ginnaaw kàddu yi nga xam ne sëñ jëwriñ sëñ su Jóob wax na ko fi mu jëm ci wàllu ziar bi jëwriñ yi fi àddu yëpp li ñu war a leeral ñu leeral ko may wax na ci turu ñun membre yi nga xam ne jëf yi ñun ñoo ko war a jëf ginnaaw ñoom xàllal nañu li ñu war a xàllal xalaatal nañ ñu jëf ju rafet ju teew lépp lu jëm ci organisation bi leeral lañ ñu ko muy ñu li ciy suñu wàll nañ ko xam li ci jiitu mooy dañoo war a siyaare ji sëñ bi li war a dajale kenn ku ci nekk fii ba bés bay jot bésu set nañuy dajale di ñëw di wuti di di andi ba ba bés bay jot dara du fi doy leneen li nga xam ne moo si topp muy lu jëm ci wàllu tamit organisation bi nii ñu ko waxee yar ak teggin yi ñu mas a xamee nuñ ko mën a dollee nañ ko gën a def teraanga ju war suñ digganteeg suñ mbokkum taalibe ngir jataay ba gën a taw féexe nañ xam ne it ci liggéey bi la bokk ci sàkku ngërëm la bokk ñëw gi na teel kenn ku ne fañ la yemale na nga fa yem lañ la def loo nga def ko bu baax mbooleem ñi responsable secteur yi ak ñi xam ne ay membre lañ ci secteur yi nañ topp seen i jëwriñ leen sant ñu def ko nañ ko war a defee bu ko defee kenn ku ne boo defee li nga war a def mel ni defal nga ko mbooloo mi yëpp leneen li nag mooy mënumaa ñàkk àddu ci li nga xam ne sëñ Yuusu junduñu ko tamit muy boole gi nga xam ne euh, sëñ Tuubaa Seex Muntaxa Mbàkke boole na ko mbooloo yi te tey lii nekk occasion bu mag boo xam ne ndax ginnaaw bi ñu génnee ci ñaari ziyaar yu ci la ñu joxoon ndigal boole mbooloo yi tey jii ren jii nag mooy première occasion yi nga xam ne kenn ku ci bu ko sa daan def sa xel na ci sa xol na ci nga yéene leen ndam lool ren ñu bokk ànd ndam yooyu kon gëndaloo na tey na ci feeñ bu baax a baax ba nga xam ne doole ji nga xam ne sëñ bi waxoon na ko na ci feeñ ndigal lim ñu joxoon na taaru ba mu wóor ñu ne ñun ñëpp ndigal lam ñu joxoon bokk nañ ko def ci def ko ku loolu dina dina seral xolam xam ne fam ñu féete ak lim mas a daj ci ñun ba tey jii loola fàttewuñ ko te ay gor lañ yoo xam ne yi faw dinañ ko woon ne ko ay gor lañ ni nga daj ci ñun xam nañ ko kon nag ñoo ngi féetliwaat cant googu di féet di féetliwaat membre yi lépp loo xam ne war nañ ko cee def jongante yeeg lépp defe naa ni ñu ko waxee leer na naañ kenn mënu cee teg lu ko gën a kawe kon nag ñoo ngi siyaari ñëpp di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf aouzu billahi mina sheytaani rajim bàkke borom tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ziar euh, mbokki taalibe yëpp di nuyu mboolem waa Hizbut Tarqiyyah di nuyu mboolem mbokki taalibe yi ñi ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu itam mboolem képp koo xam ne euh, yaa ngi seetaan wala nga ñuy dégg mu di mboolem rek kuñ bokkal réew mi ak kuñ bokkal Serigne Touba ak kuñ bokkal lislaam euh, li xaw nag jëwrin yi jiitu wax nañ ko muy Hizbut Tarqiyyah moo waajal ziyaare ji Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ziar boobu nag jàpp nañ ko le 25 juin mu dëppook ñaar fan ak juróom ci weeru wolof ci atum 2022 man nag wax ji may message bi may lancé maa ngi ko jëmale ci sama mbokki kuréelkat yi nga xam ne ñoo bokk di yëkkati xasida yi te sëñ Mountakha wax ne sëriñ bu wax ne euh, buñ doon xare ñoom ñooy ñu war a jiitu kon daal juróom fukki kuréel ak benn yi nga xam ne gannaaw ba sëriñ bi moloi mbolo yi daara yi ñoom ñoo nekk ci isbu tarxiya ak mboolem ñi nga xam ne ñooy soppe yi nga xam ne yëkkati xasida yi ñor na leen kon ziar bi seen ziar la kenn waruñ see man ni ñu war a mënee ci xare noonu la ñu war a mënee ci joxe noonu la war a mënee ci euh, bis ba suñ taxawaay ci wàllu col ga ci wàllu njàng ma ci wàllu yitte yi ak ci wàllu àddiya yi buñ ci kenn man sëñ nag daf ñoo waxoon ne sëñ tubaa nee na ku ma defal loo mënul ku ma defal loo man naa la defal loo mënul ku ma defal loo mënul nag naa la defal lu la jomb képp koo xam ne euh, jox nga ma sa lépp man Sëñ Tuubaa naa la ko téyal defaral la sa lépp ku am loo ma jox ci sa bopp la ci des nga téye ko la nga ma jox dinaa la ko defaral la nga téye ma bàyyi ko ak kon nag ñun buñ dese dara nañ jox suñu lépp Sëriñ Tuubaa na ñëpp ñëw wuy si woote bi muy membre muy soppe képp koo xam ne daal xasida ñor na la kuréel ñor na la ak foo mën a ne ci réew mi ak bitim réew ziar bi sab ziar la nañ la ciy woo bu la ci kenn man ci barkeb Serigne Touba. sëñ Blaat dañoo waxal ne tam sëñ Touba toog na juróom-ñaari at yoo xam ne nee na juróom-ñaari yi gisu ci dara gisu ci kenn nee na gisul góor gisul jigéen gisul mag gisul ndaw benn sarax buñ ko jox nekkul ci loxoom du àddi yi juñ ko jox nekkul ci loxoom. nee na loolu nag ku ci jaar ba jàll képp ku bëgg ci yow dara nee na war ngaa def loo man ak loo mënul kon nag nañ def luñ man ak luñ mënul bu ñu kenn mën ci ziar bi euh, wasalaam loolu rek laa amoon lu ma ciy wax jërë ngeen jëf di sant ñëpp. jërëjëf kon ñoo bokk dégg kàddu yi nga xamante ni moo fi jib dale ci jëwriñu daara ji sëriñ si Diop ak mbooleem jëwriñ yi nga xamante ni euh, ñu ngi ci. di fàttali ne bis bi gaaw lay doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru Zul Xijja gi ñu ne muy digg tabaski war a dëppoo ak samedi 25 juin ci Touba. ci kër Serigne Touba gi nga xam ni moo jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji kon nag bu ñu déggee kàddu yi gis nañ ne wàccaay wi amul fenn fu ñu ko yemale ba keroog ñu yéeg ci bis bi fu ñu toll woon nañ ko xeeb ci li nga xamante ni moom la ñuy jëf ngir xam ne ki ñuy fekki ameel nañ ko cant goo xam ne lott nañ ci kon nag lépp loo xamante ni suñu mën-mën la ak suñu kàttan lu ñu mën ak lu ñu mënul nañ ko ci def ngir njariñ yi yëpp nga xam ne sëñ Abdou Salaam wax na ko ci ziyaare sëb sëriñ li muy jariñ loolu lépp suñu borom defal ñu ko ci tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu sëriñ Touba mu matale ko te ñu ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.